ba tey ci lu jëm ci campagne électorale ci présidentielle atum 2019 ñu dëgmal soxna Fatou Binetou Pouye nag mi ci lancé bi nga xam ne nii noonu la doore woon li nga xam ne moom moo jëm ci campagne am ba nag ni ci zone 2 bu Ndindi moom mi nga xam ne nag moom moo jiitee mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci zone boobule ànd ak docteur Alioune Sylla Alaaji Ndiaye programme ak mbooleem ñi nga xam ni ay responsable lañ foofu la ca Ndindi ñoom nag ñu ngi wéyal li nga xam ne moo di seen campagne bi lee jeunes leen dugg génne leen carte d'identité carte électorale ci ñi fi ne ngeen orienté leen parce que affaire bi am na ay bureau yu toxu ngeen teel koo liir xam fi ngeen di voté incha allah danañ leen jox oto danañ jox ay moyen ngeen dem woto ji lii si li ma bëgg daal moom mooy li nga xam ne lii ñu ngi ko ànd di dox yàlla na mu sëñ Fallou jàppale ba bañ am ci ndam. ànd ak docteur Sylla ak sonde yëpp pour ñu jàppale président ngir mu gagné élection yi di ñëw. ba li nga xam ne moom la suñu sëriñ bëgg sëñ si sëñ Muntaxa Mbàkke mu defal ko ko ci lu gaaw a gaaw niki ci fuk niki ci fukki fan juróom-benneelu campagne bi ñoom ñi lee ñi ngi dem fi nga xam ne ni moom moo di ca kër kàbbu rawatina fi nga xamante ni moom moo di ca biir ndindi foofu la nag ba nga xam ne ñoom ñoo di askan mu dëkkee foofu la dinañ ci ëpp doon ay li nga xam ne ni moom moo di ay xam ne nekk na foofule ca kër kàbbu bokk na ci loolu aw yoon ndox courant ak li nga xam ne ni moom moo jëm ci ay bërëbu jàngukaay yoo xam ne ni seeni gone mën nañu faa jàngee ndaxte ñun amul ndox amul yoon woon demee amul euh, lamp fii xam nga ne buñ fii fee buñ bu ñu boor tàcc nu du ñëw fii ci dëkk bi loolu moo ñu jaaxal ay jafe-jafe yu la ñu am ñu ngi nii bëgg a liggéey mënuñoo guddi mënuñoo liggéey bëccëg ndax amuñ ci luñ jàpp. yéen ñëpp gis ngeen bi ngeen di ñëw gis ngeen ci yoon bi ni mu leen demee gis ngeen nu mu mel nii fi ne nii moom fii moom courant la gën a soxla ah ak ndox courant ak ndox lañu gën a soxla. ku ñu ci jàppale ñu jël fii moom spécial Macky Sall la ñun ñëpp pour cent pour Macky la. mu mel ne que càkkutéef yooyu la dugaluñu ko ci nopp dox soxna Fatou Bintou Pouye nag mi nga xam ne nii moom mooy jóg daal di saafara yëpp jafe-jafe nga xam ne nii am na ci zone 2 boobu la ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall yëkkati na ay kàddu waaye itam yamu ca mu daal leen di indil ndimbal lu am solo loo xam ne nii jox na leen ko rawatina li nga xam ne moo di enveloppe bu diis boo xam ne nii dimbale na ko jigéen ñi ngir ñu gën koo suqalikoo ci lu jëm ci wàllum financement yéen moom jarul ñu fiy wax dara xam nañ ne Macky dina fi am 100 pour cent dañoo ñëw yéen ñëpp ngeen yor bulletin président Macky Sall li ci des mooy bés bu ngeex ba bésu vote bi le 24 incha allah bu kenn juum ci ni dama bëgg ngeen jàngal seen nit ñi fii naka dañu war a votelee président Macky Sall kenn du leen ko jàngal yéen ñëpp am ngeen bulletin wam bu ngeen jëlee enveloppe beex wi jël benn bulletin incha dugal ko ci biir enveloppe bi delluwaat ba fa ngeen jëlee woon bulletin yi suruxal ko ci kees bi ñaanal ko yàlla may ko ndam au premier tour incha allah rabbi léegi nag gannaaw fii bañ fi ñëw daf ñoo bett te li yoroon ci ceeb yëpp dañ koo wàccee bu subaara na seen sëñ Youssou ñëw dañ ko jox juróomi saaku ceeb enveloppe bi ñoo ko ci teg ngeen di ci mbaxal di ci daxin di ci waxtaane président Macky Sall ginnaaw kër kàbb googilee ki nga xam moo di soxna Faat ne moom di Daaru Salaam Tawféex bokk ci gox yi gën a sori ci fi nga xam ne moom moo di diggante tindóor yi ak njindi foofal tam leen xoolloo fa la xool li olof Njaay di wax jote balaa jootee ndax docteur Silla mi njëkk na fee ñëw indi leen ci lu jëm ci ay financement waaye itam jàppale leen ci lu mel ni ay robinet ak yeneen yoo xam ne ni aw askan mën na koo tiitaroo ci lu jëm ci wàllum infrastructure moo tax jamono ji rek ñu ànd ak moom fas yéene faat ki nga xam moo di président Macky Sall ci premier tour. ñun waa koñu Tulloori bi ñu ngi sa gannaaw guddi ak bëccëg ndax li ñu jafe woon yaa ñu ko andil gannaaw li ñu jafe woon yaa ñu ko andil nag làq nga sunu cant kenn nag ñoo ngi sa gannaaw ba géej gi de sa bolaat kenn la ñu àndal muy yow Cheikh Massamba Cheikh na yow la ñu àndal kenn ku du yow. ñu tàllal na la sunu loxo tey ba suba te am nañ yaakaar ne day toog deuxième am nañ ci yaakaar bu baax baax a baax a baax bi nag ñoo ngi nii parti bi nag ñëpp ñoo ngi nii maanaam ay lawbe lan nee nañ sonn nañ ndax dañuy mboro mboro daan da sonn ñii dañuy xooli gerte ñii dana yéen ay ay buron ba sonn waaye yéen buron yi moom jëlee ko fi bile journée nag ñii la ko soxna Faat Bintou Pouye daal di tëjee ànd ak mboolem naataangoom yi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu fi ci zone de euh, fas yéene rek di battre campagne ba li nga xam ne moom moo di ci veyu élection yi ngir dal di mën a faat seen leader di président Macky Sall ngir mu mën a am ñaareelu mandat ba eggal li nga xam ne moom moo di ay mëbëtam ci réew bu Sénégal